comme une intro, je vais quelques dédicaces. Vas-y. Moi oh, ci seen euh, rubrique musique d'ici et d'ailleurs ñu waxtaanee artiste bu ñu duppee Solar moom nag si turam dëgg ñu ngi koy woowee Claude Honoré Mbarali juddoo fii ci Dakar si atu 1969 nekk rappeur français bu ràññeeku bokk si ñi njëkk fësal bile xeetu musique si atu 1990 di si amal ay xeetu mbind goo xam ne xarañteefam si kàllaama nasaraan kenn dootu ko natable. un petit qui a voulu que la soit comme une poésie. Et surtout, va pas croire qu'il y dix mille filles. Je dis ça pour ma famille, je n'étais pas parti en vrille. On me jette de la tête. terre. On dépose quelques ki nga xam ne waajuram yi ay Tchadien lañu bàyyam bii di firikat waajuram bu jigéen di ab infirmière dikkam fii ci Dakar li ko sabab moo di ab situation politique boo xam ne jàmm riirul foofe sa caad sa yooyu jamono. Mon âme monte, je vous vois en contre-plongée. C'est ceux qui sont déjà partis que je m'en vais retrouver. Ne vous inquiétez pas, je pars pour le paradis. moom nag ay ndorteelam si musique nekk lu yàgg mu tàmbali ko woon si turu Claude MC si jamonoy 1988 am cofeel lool si li nga xam ne moo di littérature. ne saa yu ma saan xëy balaa def dara li muy njëkk a def mooy yër kayitu yenn kaay yi. boole ko gëstu ngir mën a gën a xam li xew ci jamono ji dolli tamit li nga xam ne mooy ñoŋal li nga xam ne moo di kàllaama Molière. Le mic pleure, la feuille pleure, le bic pleure, et sous le sol Solar pleure. Petite dédicace à la rubrique TEF. si wàllu discographie xamee nañu ko ay albëm yu bëri te ràññeeku lool ci bëtu soppe yi lu si mel ni live bi mu njëkk amal si atum 1988 duppee ko le tour de la question gannaaw ba mu ci amee ndam yeneen album topp na si yu si mel ni qui sème le vent récolte le tempo si atum 1991 mu daal di génne li nga xam ne également moo di Prose Combat en 1994 génne li di Paradisiaque si atum 1997 yooyu yëpp def succès génne tamit li nga xam ne moo di MC Solar mu di album éponyme en 1998 génne tamit en beneen album bu am succès mu duppe ko cinquième as album bi si topp mu di Marche 6 en 2003 la ko génne génne tamit beneen album bu ñu wax euh, chapitre 7 en

ki nga xam ne nekk na auteur interprète poète dellu si na ci scène musicale française gannaaw mu toogee lu tolloog fukki at album bi mu indi mu duppee ko géopolitique mu nekk lu xarit yi ak soppe yi di rafetlu ndax nag fa mu féete woon ci wàllu mbind ak gëstu ku ko déglu ba léegi fekk ko si ñu fàttali ne mooy rappeur bi ëpp li mu jaay ci wàllu disque foofee ci France ba tey ñu xayma ko ci juróomi million njaraama waay unissons nos forces, nous architectes et